Siré Sy ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw maa ngi lay nuyu Faye. Mhm, ngay président think tank Africa Worldwide euh, sa ci wàllum institution yi voilà donc ngeen ci yëngu lu bëri euh, tey ñu bëgg a waxtaanee institution parce que euh, yu ci mel ni Union africaine ak CEDEAO tey mm. lan moo waraloon ca ndorteel ba ñu taxawal ko. waaw dañuy distinguer lii di Union africaine ñu koy wax UA. Mm. ak lii di CEDEAO en réalité UA daanaka moom ci continuité la nekk dafa am lu fi joto a nekk. loolooy dox ba jëmmi jamono soppi turam la njëkkoon a nekk te ñuy soppi mi ngi tuddoon organisation de l'unité africaine maanaam africain yëpp daal boole nekkandoo ci benn say waaye loolu te koy créer ma nga woon tombeek ak li ñuy tuddee les années soixante les années soixante njeexital bi ci am mooy euh, période bi nga xam ne ay la yéwén dëkk Afrique yu ci gën a bari ci nañu jote amee seen indépendance léegi nag ñoom Afrique dañoo jàppoon ni xeex bi ñu war njëkk a xeex d'abord euh, aw nooteel jóg ci Afrique complètement parce que dañoo constaté woo ne amoon na ba léegi ay dëkk yoo xam ni colonisation mi nga fa doon am ba léegi surtout mooy euh, Portugal ak les pays lusophones ñu ngi leen di tuddee lusophone mm-hmm. mooy ñi làkk portugais mm-hmm. euh, ba ci Angola ba ci Guinée Bissau et cetera ba ci même euh, côté Cap Vert donc da ngay gis ni ñoo ñëpp génn guñu woon ci colonisation donc unité organisation de l'unité africaine bokkoon na ci ay mbëbëtam mm-hmm. mooy xeex d'abord que dëkk yi nekk Afrique yëpp moom seen bopp. Mhm. te bu ñu bu ñu moom seen bopp aussi ñuy mën di dimbalante di jëfalante di dikkalante ba nga xam ne daal euh, maanaam ñoom ñu war a mën a dem ca kanam léegi nag loolu ay objectif politique la woon. Mhm. ba àdduna demee ba les années deux mille mu am lu xew ci diggante bi léegi la ci xew mooy ba ñu nekkee ci les années soixante dix. Mhm. Euh, dëkk Afrique yu bëri dañoo amoon lu ñuy tuddee sécheresse maanaam bekkoor bekkoor bu doy waar sax d'ailleurs bekkoor boobu sax Léopold Sédar Senghor mosoon na ci bind benn livre tuddee ko la grande sécheresse on n'avait jamais vu une telle sécheresse donc sécheresse boobu bu mu dafa taxoon surtout Afrique sowu jant yi euh, dafa tax dëkk Afrique yu bëri dañoo demoon lebi xaalis. Mhm. ndaxte ñoom seen modèle de développement économique planification boobu dañ ko sampoon ci agriculture mbay yu demoon lépp xaalis def ay jiw yóbbu yëpp nag far yàlla sunu borom nag tawul te jamonoy fay bor jot te ñoom jotuñu récolté donc xam nga dafa doon métti léegi loolu lañ tuddee plan d'ajustement structurel maanaam takk sa biir daal léegi nag dëkk Afrique yooyu de 1973 presque ba mille mm-hmm. dafa fekk ñoom alal gi ñu jotoon a lépp yëpp jot nañu ko fay ba amelatuñ kenn bor léegi nag prix euh, dëkk Afrique dañ ñëwoon nag ñun guute gi ñu génn nii dinañ def tuuba dootuñu ci duggati mukk parce que trente ans yi sonn nañ trop ak nasaraan yi ndax di fay bor léegi nag ñun kenn dootuñu tëggalati suñu programme neen ñun yéen nii ngeen di def pour développer wu la nii ngeen di def pour génn léegi nag ñun africain suñu wàllu bopp ñoo gën a xam fu góom bi di mittee ah, fu tànk bi di xasane mhm. ñun dañ ko waxal suñu bopp quoi léegi nag ci nañu élaborer ce qu'on a appelé les plans nationaux de développement économique social boo ñëwee Sénégal moom ñu tuddee plan Sénégal émergent boo demee Maroc moom lañ daan tuddee vision vingt vingt plan Gambo émergent et cetera léegi nag ci vague boobu africains yi bëgg a moomaat seen bopp bëgg a jëlaat seen politique économique définiral ko seen bopp xalaatal ko seen bopp càmbatal seen bopp ah développer ko seen bopp ci la benn président li bi bawoon euh, xadafi yàlla na ko yàlla yërëm euh, ci ay euh, moyen moom daal woo africain yi ci beneen approche ak beneen doxalin bu bees mhm. maintenant léegi nag ñoom ñooñu xadafi daanaka mooy yoroon moyen yi maanaam jumtukaay yi. Mm-hmm. président Ablaye Wade moo yoroon. Euh, xel mi euh, a xalaat bi. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, léegi nag Obasanjo ak Thabo Mbeki ñoom ñoo yoroon programmation bi li ñu tuddee les les les axes programmatiques parce que Nigéria ak Afrique du Sud sont les deux puissances les deux premières puissances économiques du continent. donc ñoom ñoo yoroon leadership bi léegi nag ci jamono yooyu ci la Kadhafi ku ñuy wax Kadhafi. woo Afrique yëpp daat koy financé moom de sa poche euh, mu jël benn dëkk boo xam ne moom fa la juddoo Kadhafi muy Sirte euh, daat fay woo Afrique bi yëpp ñu daal di gas ba mu xóot suul fa OUA daal fay dekkal nag organisation bu bees bu tudd Union africaine naa nag léegi Kadhafi nag ak ñoom Ablaye Wade euh, président Ablaye Wade président Thabo Mbeki président Obasanjo hmm. dañu ne woon nag léegi UA bi ñuy créer su fekkee naam OUA moom la ko taxoon a jóg mooy ay considération surtout d'ordre politique mais UA bi ñuy samp nag moom affaire koom-koom mooy war a nekk moteur bi maanaam intégration économique koom économie développé yokkute ci koom-koom. ci koom-koom lañ ko Euh, la juddoo ci nañ ko ngéntee te ci la war a doxee alors que bële nag moom ci politique la juddoo te nañ ko sose te ci tànk yooyu la waroon doxee loolu mooy loolu mooy union union euh, africaine euh, africaine mooy wéy ba léegi nii bu dee CEDEAO nag CEDEAO kuréel la boo xam ni Afrique sowu jant ñoom ñoo ko samp en mille neuf cent soixante quinze mhm. te bés parce que bañ koy doon bëgg a samp dafa amoon ñaari xalaatin ñaari camp benn camp bi def nii yéen de gars yi yéen a ngi bëgg a juum waruñoo samp kuréel boo xam ne ci affaire koom-koom lay a samp benn kuréel boo xam ne intégration politique la war nekk mais non pas hmm. léegi nag ñoo doon défendre boobu mooy Cheikh Anta Diop ak Kwame Nkrumah léegi yeneen président yëpp nag Senghor. Hmm. ba ci euh, ñoom Houphouët-Boigny. Hmm. ñoom intégration économique nañu gisoon ay la nag ñoom Nkrumah Cheikh Anta Diop ñu néewal leen doole ñu teg euh, CEDEAO muy dox ci affaire koom-koom intégration koom-koom euh, ba nga xamee ni UEMOA moom moom ci affaire monnaie la doon dox. Mhm. CEDEAO di dox ci économie ak commerce. léegi nag euh, dafa mel ni de bu ñu ko jàngaatee ba ci biir quarante ans après. Mhm. ou plus de quarante ans après. Cheikh ante Diop ak Kwame Nkrumah am nañ dëgg ci ñun. ca ñoom Senghor ak Houphouët-Boigny. nu ñu amee dëgg ci ñun mooy tey ji monté nañu kuréelu. économie. Mhm. te taxul suñu jëflante économique ak commercial demee noonu. deuxièmement ñu am ay problèmes yoo xam ne amuñu fenn fu ñu koy lijjantee. muy ay problème éminement politique. ñu bëgg a woo benn kuréel boo xam ne moom économie moo ko tax a jóg pour mu ñëw lijjante ay problème politiques problèmes politiques waay. léegi nag ce qui fekk dafay am benn décalage ak déphasage. dëgg la léegi décalage boobu déphasage boobu mooy indi nit ñi bëri naan waaye finalement CEDEAO moom ba njariñ lay am. <laughs> créé ko ak li ñu ko bëgg a. ko bëgg a def loo bokkul ñu créé ko. moom la Jacob daan wax. Euh, euh, une fausse solution à un vrai problème le professeur Isaac Isaac Jacob Ndiaye bu faculté de droit. Mm-hmm. loolu lay tuddee apporter une fausse réponse à un vraie question. d'accord ici politique moo tax boo ko xoolee ba ci biir. CEDEAO bu affaire yi jaxasoo ba jaxasoo lu muy def rek mooy tëj leen frontières yi donc ay ay sanctions économiques. donc léegi kon dafa des. ci bu ñu bëggee sunu côté côté yi mu xaw a dem kanam. Mm-hmm. ñu comprendre que politique moo jiitu économie c'est-à-dire que intégration politique mm-hmm. su ñu nekkee ci benn vaste ensemble mm-hmm. maanaam ca la dans la dimension sous-régionale bu nekkee ay dëkk yu bari la boobu politique ngay jiital doo a teg économie d'accord mais soo nekkee ci sa dëkk yow rek rek rek rek rek boobu économie ngay jiital doog a teg politique d'accord bu ñu nekkee ci benn perspective d'intégration mm-hmm. il faut régler d'abord l'intégration politique et bu ñu régler intégration politique ci ne ñuy doog a régler intégration mooy lu mën a régler intégration économique mais bu ñu nekkee à l'échelle nationale mhm. on règle d'abord la question économique c'est l'inverse waaw voilà c'est la question économique qui va régler la question politique politique tey jii mbaadu tax monsieur Sy nit ñi ne institution yi ni mel dafay bloquer intégration bi oh. koy freiner carrément waaw waaw waaw effectivement parce que euh, angle d'approche bi ñu ko duggee mm. moom moo baaxul il faut que kon ñoom ñu xam ne jàmm uh-huh. moo jiitu développement c'est-à-dire fu jàmm amul stabilité amu fa. Mhm. ay la yéwén développement koom ak commerce ak yooyu yëpp lu fa mën a am. ndax olof Njaay danaan balaa nga naan naam ne fa. donc effectivement ñoom dañuy jàppee ne frein la mais en réalité. Mhm. dañu boo xoolee architecture bi. CEDEAO teg na kuréel goo xam ne ci affaire droit la. justice comprendre nga. Mhm. ou judiciaire mooy lay cour de CEDEAO cour de justice CEDEAO. teg na mécanisme. économique et commercial mooy CEDEAO bi ngay dégg léegi nag dafa des benn instrument boo xam ni tant que amul daanaka dañuy tourner autour du rond muy benn CEDEAO politique mais CEDEAO politique boobu tamit il faut que moom muy am dogal mhm. parce que am nañ sax CEDEAO militaire mooy ECOMOG léegi il faut que CEDEAO politique bi ñuy teg nag mu am dogal ba nga xam ne tey jii moom bu décider ne affaire bi nii la voilà comme ni ñuy def ñi ci ñuy ci ne ñuy doog mën a activer maintenant ay ay ay ECOMOG activer ay cours de justice mm-hmm. et ba nga xam ne politique bi mm-hmm. balaa ñoo mën a kii dana fekk euh, ñu jéem a liggéey ba justice bi aussi mën a efficace cest à que la décision politique dafay nekk la dernière décision mais day nekk d' abord bu ñu amee problème rek euh, les aspects juridiques taxaw bu les aspects juridiques mënul taxaw nag les aspects politiques taxaw ci les aspects politiques yooyu nag ci dañuy dem ba recourir à la force pour rétablir le droit mm-hmm. mais sinon euh, li ñuy gis mooy euh, bu ñu demee ni au nom du principe de la non ingérence mm-hmm. et de la souveraineté des états mm-hmm. daanaka CEDEAO du ci mën lu bari lu muy mën rek mooy condamner tëj ay frontières te loolu du ko mën a lijjanti mais su ñu amoon benn décision bi loolu doon na gën a ñiy def yenn coup d'état yeeg yooyu dinañ gën a mën a réfléchir à deux fois avant ñuy wax ni kii bi parce que suñ ko defee amatul logique bu euh, euh, dootatul euh, nekkatul ay question de souveraineté économique mm-hmm. mais dafa nekk benn affaire de souveraineté sous-régionale tey jii ñu gis ne coup d'état yi bëri na lool Afrique lan moo war doon coppite maanaam fan lañ ko war a teg jëm ci wàllum jàmm ak stabilité ci diwaanu région ouest africaine pour génn ci. waaw euh, d'abord première chose affaire coût d'état yi. Mm-hmm. mën nañ ko jàngate ci ñetti anam. Euh, première anam bi boo xoolee dafa am benn pays ay pays africains yu bari yoo xam ni. ca nañ ko sosee. Mm-hmm. militaire maanaam armée dafa bokk ci. juddub dëkk yooyu hmm. ça veut dire que soit dëkk yooyu dañoo judd rek militaires yi jël pouvoir bi daal koy dawal nag ay at yu yàgg yàgg yàgg ba nga xam ni jaar-jaaru dëkk boobu c'est intimement lié armée bi hmm. ak militaire bi ce qu'on hmm. appelle les régimes ah, yoo xam ni daanaka yu bari ay Guinée ci la bokk Burkina Faso et cetera c'est-à-dire que militaires yi yàgg nañoo dawal léegi dañoo demoon benn instant avec ce qu'on appelle la conférence de la Baule l'ouverture la démocratisation génération dans les années quatre-vingt-dix ñu mel ni tendance lu mooy na militaires yi dugg ci caserne yi delloo euh, pouvoir bi civil yi léegi tendance boobu bu mu ñëwee dafa mel ni à partir des années de quatre-vingt-dix ba jusqu'à deux mille vingt dafa mel ni comme si ci ay njeexital euh, ñenn militaires yi mën nañoo wax ni mais ñun de gars yi dañoo jàppoon ni ñun ay soldats nañu donc xeex rek dañu war a mën mhm. mais waruñoo mën a gérer dëkk nañ ko bàyyeeg civil yi te ay la yooyu nañ ko bàyyee civil yi gis nañ ñi ñoom liñ fi jot a defat wuutewul torop torop torop ak ñun biñ fi nekkee luñ fi def defoon. Mhm. kon donc luy ndeyu ñun ñu war ñoo confiné ci caserne yi rek. Mhm. jël civil yi ne leen dawal leen te daanaka ñoom seen i eh, eh, dawal mooy loolu li koy xale yi di waxee. ba pare sax ñoom li leen di gën a encouragé ci loolu mooy mu am ay militaires comme par exemple le cas de Rwanda. Mhm. Ah, le cas de du Ghana avec Rawlings. bu nekkoon ay militaire jël seeni réew ba teg ko ci raay bi ba tey jii ña ngay dawal kon donc affaire bi nekkatul ci affaire militaire la ak civil la mais dafa nekk ci yow ci sa politique sa vision sa leadership pour nga mën a jël sa raay sa dëkk teg ko ci kii mhm. loolu mooy benn angle stratégique bi mhm. beneen angle stratégique bi souvent boo gisee suñu dëkk Afrique yi fii nii ce sont les hommes qui sont encore plus fort que les institutions ba tax na tey jii ci loo gis rek dafay am lu ñu tuddee la petite histoire dans la grande histoire ça veut dire que man ak yow bu ñu amee un différent te ñu nekk ay décideurs sunu système yi sunu institution yi c'est tellement faible que sunu différent personnel mën na rejaillir institution bi ci système bi ba sax mën ko bloquer alors que par exemple boo xoolee demee ci yenn dëkk ma doon par exemple Amérique wala quelque bu ñu mën a am entre président cour freiner institution yi. Mm-hmm. donc ñun travail boobu nañu war a def léegi nag boo xoolee par exemple ma jox la benn ka misaal Guinée Bissau. Guinée Bissau problème bi fondamentalement c' est c' est c' est un problème de personne nekkul benn problème de institution c' est problème de personne mooy lan dafa am ay gars yoo xam ne dañoo lëkkaloo maanaam coalition li Macky Sall euh, réussir fii moom la Guinée mooy gagner ensemble et gouverner ensemble nga Macky Sall loo ko mënti waxit Euh, ba mu gagné gouverner na ensemble moom ak gaayam ba tax na AFP ak PS daanaka pendant une année euh, ñoo xam ne du ñu euh, jaaroo ànd mais mën na def na tout ba dëkk leen ci benn bu néeg ci benn ànd ñuy jaaroo te coow jibul donc loolu Macky Sall réussir fii nag maanaam fédéré des des des zones contraires comme on dit Guinée-Bissau moom la Embalo mënagul a réussir parce que Embalo dafa am benn coalition bu ko samp au pouvoir bu ko jàppale ba mu gagné ñooñu nag yaakaar ni euh, ñoom it ci gouvernance dëkk bi dañ cee am dogal dañ cee war a am lu ñuy def ak mais Embalo euh, moom euh, xaw a jàpp ni daal moom moo gagné moom mooy fal donc moom mooy gouverner. léegi nag loolu nag rejaillir sur le plan politique te comme da suñu réew yi politique finalement nu ñu koy réglé mooy militaire te moom aussi mu am ay différent yu xaw a profond yu mu am ak par rapport ak armée bi mhm. voilà ci ci ay gis gis gis gis ci ay doxalin yu war a réformer dëkk beeg yooyu donc ci li ñuy waay naan kuy xalam da ca jaayu armée bi tamit ñoom jàpp nañ ni comme ñoo yor gànnaay ñoom tamit c' est avec leur moyen de force ci la ñuy régler problème yi donc mais donc da gis ni donc est un conflit personnel buy mën a déboucher bu nar a déboucher ci ay conflit souvent boo ko demee demee contrairement ak kaaw Mali bi ba nga xam ne la la la problème problème très euh, beaucoup plus profond parce que affaire partition du du Mali la affaire jihadisme affaire paix affaire sécurité donc bu ñu bëggee mm-hmm. euh, réew yi ay la euh, ñu ñuy mën a nekk ci jàmm mhm. malgré nos contradictions parce que mhm. contradiction mënta ñàkk dëgg la moom la Pape Cheikh di wax naan euh, euh, gis-gis yi mënuñoo bañ a wuute <laughs> ah waaye waaye nañ ko waxtaanee. nañ ko waxtaanee parce que ay ay ay la yoon il faut ñu ñu ñu trouver yoon. féewaloo bi gis-gis moom ala kulli àll il faut mu wute mais nañu mën a préserver l' essentiel donc ñun Afrique dañu war a travailler à telle enseigne que. Mhm. suñu institution yi mooy gën a fort suñu nit ñi. nga xam ni les hommes passent et les institutions demeurent. comme on dit troisième a d'analyse bi tax ne fi mu toll nii ay la yoon euh, Afrique. cax-cax bi mu yëngu nii. Uh-huh. yëngatu bu mu yëngu nii ca kanam la jëm. ci kaw euh, ñi ñu jiite. il faut que ñoom ñu nekk à niveau de ñi ñu jiite. maanaam population africaine. Uh-huh. Euh, boo ci xoolee soixante quinze pour cent. Ah, juróom-ñaar fukki ak juróom yëpp. Euh, ay ndaw nañu. Uh-huh. te ndaw yi ñoom ni ñuy xalaatee. ni ñu gisee seen bopp ci àdduna bi. d'abord ni ñu gisee sax seen bopp ñoom. ni ñu gisee àdduna bi ni ñu gisee ñeneen ñi. ni ñu gisee ressources yi ni leen jiite ni ñu gisee àdduna bi ak ni ñu gisee ñoom seen place ci globalisation mhm. c'est diamétralement opposé parce que booy xool dafay am ñetti choc yoo xam ni euh, ñiy jiite dañ ko wuutee trop ak ñi ñuy jiite beneen bi mooy affaire démographie donc ñi ëpp ci ñu ñuy jiite ay xale nañ donc seen ond li koy xale yi di waxee seen i ond ak seen lii sound seen i bopp daa wute complètement ak lii sound ci bopp ñi nga xam ne ñooy jiite te ñooñu ca siècle bu dernier ba nañu soqe ko <laughs> dañoo bokkatul waxtu daal très bien li li li tubaab bi di tuddee les rapport de conflictualité diffuse d'accord ñoom seen cerveau seen mindset. <laughs> Uh-huh. Ah, seen disque dur ñu ngi ko forgé ca euh, siècle dernier. d'accord. te siècle bii nag li Youssou Ndour naan jamono bi nekk ak la cay xew. Eh. jamono ju ne nag siècle bi ñu nekk nii daa am yu bëri yu bëri bëri yu xew su l'aune des innovations technologiques et de la révolution financière de la globalisation yoo xam ni lu bëri la woon woon ni na. d'accord mais malheureusement ñi ñuy diriger nag comprendre ñu ko loolu mooy premier choc bi démographique. d'accord euh, beneen choc bi. mooy choc bi économie choc uh-huh. économie. sunu euh, dynamisme économie. Mm-hmm. moom mooy secteur informel bi ñoo ñooñu daanaka gisuñu leen fenn. te dafa mel ni ci répartition des richesses bi. Mm-hmm. ñoom la ñu gën a fàtte. te tant que problème boobu mi ngi am ça veut dire que le secteur formel maanaam fonctionnaires yi travailleurs yi ñoom ñooy gën a gis euh, sunu ressources yi ñi nga xam ne bokkuñ ci système boobu duñ ci gis dara ay la yëwén ci nii rek la fay demee. Mm. beneen bi nag mooy euh, fi may daanale mooy révolution technologique yi li mu indi. Mm-hmm. dafa indi nii euh, xale yi ak africain yi. ñoom avant ñuy gis seen bopp en tant que sénégalais euh, ivoirien malien et cetera il dañu nekk tamit des citoyens mondiaux et mondialisés comprendre donc ñoom dañuy am benn genre double présence mm -hmm. ils ont une présence nationale et une présence globale mondiale et mondialisée euh, ñu lay jaajëfal bu baax a baax waxtaan bi am na solo lool absolument merci beaucoup hein. merci à vous